commentaire dañ dañoo soxor iñaan ak bon kese moo leen jàpp mhm. amuñu dara te mënuñu ko am leer na leen loolu moo tax ñuy bind seeni commentaire di wax lu nekk mhm. mais Boucher Ketchup dafa liggéey ay këram la la jënd ba pare teg ko moom ko mhm. ba pare nga yàlla teral ko indi ko Sénégal léegi comme ni ngeen koy waxee noonu mu demee noonu mais toog muy dox ñoom la moo la vrai sens xamuñu sax fu mu jógee xam nga na la wut xaalis am xaalis maanaam am xaalis li koy maye. liggéey liggéey liggéey bi comme ñun ni ko xamee liggéey bi ñu ñuy def nii. mooy juróomi position ci maye xaalis. xam nga lan mooy lan mooy maye alal dëgg-dëgg. mooy lan mooy maye alal dëgg-dëgg. Mm-hmm. mooy attaqullaa ragal yàlla mooy li mag ñi nekkoon li borom tubaa nekkoon wala li sëñ ji Maalik nekkoon wala Baay Ñas. Mm-hmm. mës nga leen xamee ñun la kii menuisier la wala kii nàngam la. Mm-hmm. lu nu yoroon lu dul seen kurus xam-xam ragal yàlla asbunallahu wa ni'mal wakiilu doyloo sa boroom parce que nag yàlla mooy mooy dundal mooy rey waaye yàlla tamit biir bi ni ko sëñ Saali waxee woon dane ñaari biir la nit la doomu aadama am mhm. benn biir bi yàlla moo la war lu mu ci def beneen mhm. bi yow yaa warloo loo ci def mooy bàmmeel kon biir bii moom boo toogee boo liggéey yépp yàlla suñu borom dana la jox loo ci def mhm. looloo tax ñi xam borom xam-xam yi ñenn ñi wala sëriñ su ndaw si di wax ni loolu mooy toog muy dox toog muy dox foofu la jógee ndax am na ci yoo xam ne boo ko jëfandikoo amaana fa nga fa nga nekk doo fa jógee te lépp dina la fekk si mhm. ndax da nga daan gis ba léegi ni mag ñi sax dañuy jékki-jékki dem ca àll ba bàyyi fa seen tool mhm. nekk fa ñoom kese di fa jaam yàlla nga gis ay 4 x bi jóge fu mhm. nit di jël avion di fa di fa ñëw ñii di leen may ay oto ñii di leen may ay kër ñii di leen may ay nàngam lool foofu la gaa yi jëlee toog muy dox moom la gaa yi bëgg a indi fii teg ko fii te loolu dafa am dafa am ñu ko yàlla jagleel nga te boo jaamoo yàlla yàlla defal loolu dangay ngay toog sur dox waaw loolu ku nangoo jàmm yàlla yàlla defal la ko macha allah kon ñooñu Boucher Ketchup yor na liggéey mi ngi liggéey wax dëgg yàlla yàllaa ko teral dimbale ko mhm. nit ñi bëgg ko kilifa yi bëgg ko rek di ko woo di ko teral loolu kese la amul leen mhm. ak ñoom fa fi ñuy jeexalee Adamo am problème ak benn mara ñu koy jiñ ne dafa lekk xaalisu mara bi mu nekk lu doy wax jamono gi actualité buzz au Sénégal dëgg la waaw Adamo mhm. euh, sàcc la yàgg naa leen ko wax client la sàcc la ndax Euh, surtout lii nga li tax sax mu demee nii. Mhm. suturam di xawee ko ni ma ko waxee woon sànq bi mu laalee Waly Balaago Seck ba léegi. Mm. da ngay gis ne suturam dafa commencé xaal xaaweeku. ba da Adamo ak Waly ay doom la laa wax. Mhm. ginnaaw bi mu sàccee Sadio Gaynde. 8 mm. millions. Mhm. francs CFA. doon ko yóbbuloo ay nit. Europe ak 500 euro yu ko saajo Gaynde abal. am na yeneen booy yu mu dóoraat 1 million 500. ci compte YouTube. Hmm? ñu monétiser ko mu encaisser xaalis ba pare dóor booy yi. Hmm. booy yi di ko laaj xaalis bu biig ba sànq. booy pirate compte YouTube bi. Hmm. mooy compte YouTube bi ngeen di gis ci ci YouTube. ñu bind ci Adama Boss de Negri te lu mu live booy yi dugal ko loolu du compte Adama compte booy yi la booy yi ñoo ko piraté def ko noonu parce que dafa mës a lekk seen un million cinq cent. bërki démb am benn sëriñ bu nuy bu nuy wax sëriñ Cheikh Fall ba moom nag moo bëggoon buzz bëgg siiw bëgg a jaay ay garabam bëgg bëgg nit ñi bëgg nit ñi ñëw ci moom seetlu ko. Euh, te xam nga léegi dóorkat yi dañoo bëri ci réew parce que sëriñ bu aay tamit jàpp naa ne yow mhm. waroo fee nekk naa da dem ci ay aadamoo di leen fay xaalis ñu lay defal publicité mhm. moo jël xaalis deux cent mille mhm. yónnee ko aadamoo Adama war koo defal vidéo war ko defal promotion defalu ko parce que amutoon temps man Adama bi ma woowee wax na ma ko ne ma moom amul temps defal ko sëriñ euh, bi mooy yàkkamti di ko woo mhm. naan ko léegi comme mënatoo ko def delloo ma sama xaalis Adama ne ma du ma ko delloo dara parce que kii dóorkat la mhm. même su ma ko defaloon tamit da ciy lor ay nit parce que dóorkat la nii man la ma ko Adama mais Adama tam du delloo xaasu jàmbur da ko war a delloo mhm. jot naa dugal bi mu xamee ne yëg naa ko. Mhm. jot naa dugal cinquante mille neen dina fay li ci des. mu des cinquante mille. waaw mu des cinquante mille euh, ki nga xam ne mooy bébé Binta ñu ne dafa dem fële nga xam ne mooy ca Dubaï ak benn ministre ñoom ñaari tam am nañ problème jamono gi Adamo ak bébé Binta Adamo fan la koy porté plainte <laughs> Adamo 34 plainte ñu ngi toog fii fan la koy porté plainte moom du moom boppam jàmm ah, doy na de ah déedéet nañ na hmm? may boppam mais eh, Binta nee nañ ko nee nañ ko dañoo bëgg affaire caga lool nan bàyyi nan bàyyi lool te dem liggéey loolu mooy dëgg ah mais nekkee ci réseau yeeg nekk fii di cag di cagatoog lu kenn xamul ban lay weer loolu dara jaru ko dafa ah, ñaaw mais tamit est-ce que est-ce que li ko Adamo jiiñ am na. non man waxuma moom mais xale yu jigéen yi nekk ci yooyu noonu yow yi xeet yooyu. Ah, gisoo ni gone yi dañoo bëgg siiw. dañoo bëgg siiw. dañoo bëgg nañ siiw de bëgg siiw bëgg bës bëgg am nan bàyyi loolu. ngoone looy jeexalee liggéey bu <laughs> topp kaa bi <laughs> loolu mooy dëgg Binta Adamo Adamo polémique au Sénégal toujours Adamo encore ah, Adamo. Mhm, micro. Mhm. Adamo moom ku fi toog fii naan dama koy porter plainte wala dara. Mhm. yaakaar naa ne. dangay yàq say wax mhm. ndax aadamoo génnee na fi taat taatu ku ne mhm. wax na fi lu ne plainte yu ko fiy xaar kenn xamul lu mu amul ku mu waxul mhm. ku nekk nag ca kaw koo xam ne yor fa ay kayitam ak lépp di wax lu ko neex comme yaakaar naa jarul sax nekk ci aadamoo di wax beneen bi nag mm. ci sëriñ bi nga xam ne moom moo ko fay deux cent mille naa ko defal ma promo yaakaar naa ne sëriñ bu mën dara wala nga xam dara yëkkat sa xaalis ko fay naan ko demal lu promo aadamoo fulla nga am ak fayda côté boobu na ko lekk ba mu suur naan ko mu res ko ak jàmm ak salaam aadamoo nga àndal ah mais yow sëriñ nan ngay mën a debee di naxaate wax dëgg naan ay kaay kaay ma fay la defal defal ma vidéo pour après nit ñi ne Adamo wax na ci moom kon mën na parce que yow boo mënee li ngay mën da ngay toog nga liggéey nga nga prouvé mhm. macha allah mhm. <laughs> man da maa ngi ni yàgguma ci mhm. te macha allah musuma wax ne kenn defal ma promo waaw li may def vidéo sax naan c'est la voyante du peuple nangam nangam bariwul sama film Dakar laay def te maa ngi liggéey yàgg na bi ma ko médiatiser yàggul mais musuma toog sax bu ma toogee di sama chronique sama chronique laay def du ma wax ci xam-xam naan ay di ci wax dara taxawu ma fi sax mbubbu sëriñ su ma paree nag sama liggéey bu ma fa nekkee mhm. sama liggéey la parce que chronique bi lañ ma xamee chronique laay def mhm. su ma paree sama beneen liggéey ma def ko mais sëriñ tamit di dem di yónnee naan ay waxal maag mhm. defal maag nangama naam bu rafetul aadamoo tamit la même chose nit ki loo mënul bu lekk xaalisu jàmbur. Mhm. ay di jàpp ay compte jàmbur di lekk ak di dóoree. aadama daal wax dëgg yàlla dafa doy waar ku ñuy jax sa conseil bi commencé laal waale balaa ko sekk ba léegi daal amut jàmm. dëgg yàlla ma gis nga ko léegi ñëpp waxoon nañ ko ne woon nañ ñëpp waxoon nañ ne waali aadamoo dina la laayfal mhm. waali bu mu yàlla def na xam naa dafa teel a jël ay précaution gis nga ko bërki démb la mu ko laayfal laayf bu rëy la ko laayfal live ba sax bëriwul ay ndax nit ñi moom daanaka seetaan seetaantuñu aadama en tout cas mbir mi doy na waar di ko wax lu nekk di ko mhm. xas naan waali day gis tal li muy mhm. def du yoon defe nga ne wam mhm. war naa live fal waali balaa ko seek aadama en tout ni mu ko waaye ah? ni mu ko live ah. falee xaar leen suba mu àndaat ak moom parce que aadama c'est aadama non kan lay àndal waali balaa ko seek doomu coon ah? seek doomu coon Seck tout est possible mi nga xamante ne papa mi nga xamante ne nii. waale du yow vidéo la koy toppee ba ba léegi ko defal vidéo yow waali balaago <laughs> de ko wooyee du jël am na numéro téléphone am na whatsapp am na lépp bu wooyee waali balaago Seck du jël hmm. waali balaago Seck ku nekk mi ngi lay benn vidéo la koy lay koy aadamoo di toppee benn vidéo fi mu toll yow boo gisoon Wally sax ne ko mu sarax ko defal ko vidéo moom lay moom lay àdduna bi ñëpp di xaar en nañu xaaral balaa ko se fulla ak fayda gi nekk ci moom ah nit moom nit ah, moom da nature moom Wally Wally bana aadamoo Wally bana aadamoo mhm. waa kër Wally balaa ko sekk yi ñoom ñoo taxaw ne. Mhm. bis bu waali taxawatee ci kaw seen way way aadamoo. Mhm. ñoom ñu ba waali. Mhm. waali nag mooy xool ñoom ndax aadamoo moo leen gënal. wala ñoom ci seen wàllu bopp ñee ñoo leen ñi ngi xaar le 27 Cissés ndax waali dina way aadamoo Cissés dana toj dana neex te dégg waxuma Cissés le 10 avril bii. le 13. xaw ma waali yaakaar naa ma nga Allemagne ma nga Allemagne samedi bii. incha allah rek ma doo mës a dégg mu way Wally balaa ko sekk Adamo nga neen dina dem. mais foofu loolu laa bëggoon wax Adamo mun na ko fekkee. non dina dem parce que foofu la fay def rek euh, balance la xawma. bu jot bu ñu ba pare ñu ma ànd ak bi nga xam ne macha allah heure bu ñu génnee rek mu nekk contentement waaye ñëpp ñi nga xamoon rek ñi ngi toogoon du ñu seetaan bu baax a baax a baax fi ñuy terminer rek mooy suñuy ñaari caméra woman nekk fi nga xamante ne ñoo di Feeling Dakar TV di mm-hmm. Yacine Thiam ak ki nga xamante ne rek moom moo di may